asalaamaaleykum internet Leewtoo TV lundi 22 juin ñu ñëw ak yéen si li nga xam ne moo gën a fës ci yéenekaay yi commencé ko ci sunu lamb sunu lamb ak tey ki nga xam ne ni mooy wax ci euh, ko wax da ci li nga xam ne ni mooy super classe bi ki nga xam ne nag mooy saa Thiès moom nee na pare na pour bëre ki nga xam ne mooy troisième tigre de Fass bi waaye nag ci boobu combat ba tey nee na bu nga xam ne Gris bañ na koo jël du ci wax ragal la wala dara dee jàpp ne rek euh, décision wam la waaye tam bés bu demee ba xam ne ni mooy euh, bëreeg moom dina nangu ni daf koo tendre la perche may ko chance pour mu dem ci li nga xam ne mooy ci kaw ba tey ni mooy super Tapha Tine rëg-rëg bokk ci combat yi nga xam ne Gaston si may ngi na bu lañ doon fay tey ji ki nga xam ni mooy rëg-rëg combat boobu waragul mën a nekk si ñi nga xam suñu lamb xëy tey samp laaj ndax Gaston Mbengue super classe bi mu bëgg tey pare na pour teg ci li nga xam ne ni mooy prix bi def ci prix bi ko jar pour nga xam ne mbëri dinañ mën a sawar ci bëreeg boobu combat suñu lamb ba tey dem ci ki nga xam ne ni mooy Malick euh, ñi di président ci écurie bi nga xam ne ni mooy xam sa cosaan moom nag ñëw na ci li nga xam ne moo nekk ci écurie am ak euh, lamb ji en général ba mu ñëwee ci écurie bi nag ñëw na ci kañ lañ ko def président jaar jaaru mbëri ak li ko fa gën a marqué waaye ba tey na ci écurie bi ak euh, wàcc gi nga xam ne wàcc na ko fi ndax bi na saison boo xam ne moo nekkoon numéro un waaye nee na loolu yëpp li ko waral mooy manque entraînement ak manque sérieux dañ daan fees ci école bi ñëw mais gudduñ toll gisootoo fa mbër kenn du fa ñëw entraînement doo gis kenn te moom nag tollatul foo xam ne nii war na a nekk di daw ci ginnaaw mbëri dañoo a màgg xam li nga xam ne ni moom lañ bëgg boo demee ci Alioune Sarr nag moom ma ngi fay xamal ni dana dem seet ki nga xam ne ni mooy président CNG bi daal wax ak moom ne ko nag euh, jot na tey jii mu teggi li nga xam ne nii mooy léngay ñu des ba tey ci sunu lamb dem ca fekk ki nga xam ne ni mooy Gambien Gambien nekk ca fële ca écurie bul faale de bokk ci cadre yi toll nii nag daal di nay exilé wu daal di bàyyi école bi nga xam ne Tyson dem na moo fa desoon ak ki nga xam ne ni mooy Valdo moom nag daal dina dem ca Gambie fas yéene fa yeggale li nga xam ne mooy carrière ba tey sunu lamb des ak ñun ci ko réel mbër boo xam ne nag jàpp na dafa réputation moo ko tooñ parce que ñëpp xamee nañ ko technique mën a bëri ak lépp ba tey nag tax na mbëri di ko moytu looloo taxawal li nga xam ne ni mooy carrière ne ko réel donte ma ngay am ay ndam mais am combat jafe na ko lool. ñu daal di jeexal ci ak ki nga xam ne ni mooy guy gi ba tey ci sunu lamb sunu lamb ñëw ci li nga xam ne ni mooy jaar jaaru guy gi après ki nga xam ne victoire am contre Nes Zos ak Siteu tey jii ñi ngi wax ay adversaire yu Yékini ay adversaire guy gi di ci lim ki nga xam ne ni mooy Yékini junior Garga Mbossé wala Reug Reug ñu jógee tey suñu lamb dem ci fi nga xam ne nii mooy record record Abou Ndour andil ñu tey euh, trois combats yi nga xam ne marqué na Ama Baldé mi trois victoire repère la ko tuddee moom ndam bi mu am ci kaw Malick Niang la classe dans la détermination maanaam wane na fa loo xam ne nii tey bett na ñëpp parce que ñëpp dañ ko xaare woon outsider mu ñëw daal di doxal li nga xam ne ni mooy xeex daan Malick ñaa jël bu kenn weroon dool werante nekk premier défaite ki nga xam ne mooy doomu yoof bi mu ñëw ci Tafatine pied tuddee ko pièce du siècle maanaam ba ñëpp xaaree Ama Baldé mu cokkaas Tafatine foog ni day xeex daa wàcc jël tànkee daal koy daan jël bu jaaxal ñëpp taf seen laam seen gémmiñ ñu dem si Papa Sow victoire royale la fa def ba mu ñëwee combat boobu tey moo may Ama Baldé mu dugg ci li nga xam ne ni mooy cour des grands bañ taxawal li nga xam ne ni mooy combat wam ak Modou Lo ñu dem fële ca Leewtoo point net fekk fa Ndeye Coumba Fall mu andil ñu tey euh, dossier boo xam ne ni ci ma yenn promoteur yi nga xam ne dañ fee jaar jàll ku mel ni Maxu Subatel OK Africa ak Moustapha Diop ak ba ci Pape Thialis Faye directeur général Leewtoo nag nee na ay promoteur moor ne lañ ñëw nañ tëgg benn saison saison ba sa topp kenn gisu leen loolu lañ leen andiloon tey ci li nga xam ne ni moo gën a fës ci yéene salaamaaleykum mbokki suivre Leewtoo TV ñu leen nuyu baax di leen ziar di leen jaajëfal ko def comme ni ñu koy defee chaque jour ñëw seen euh, revue de l'arène tey nag euh, ndey Comba moo fi nekk Babacar nekk fi ñu daal di ñëw ci li nga xam ne ni mooy jàngat bi Ndeye Comba nuyu naa la. maa ngi lay fay Acha comme li ñuy wax rek tey 100 pour cent féminin la donc bàyyi na doxal rek démb la woon fête des pères ñu félicité ñu ñu euh, ndokkeel papa yëpp xam nga ak sunu papa yeeg sunu jëkkër yi te nag lënd bi nag moom. jigéen yee ko aye pour pour rek une semaine encore Aïcha. waaw ah, euh, ñu ñaan semaine nu jàmm rek euh, jéem a def euh, assuré daal di bégal ñi nga xam ne ñooy internet Leewtoo TV ñu dem tey suñu sunu lamb Ndeye Comba mu andil ñu Sa Thiès Gaston Mbengue ñëw na wax dafa bëgg combat am ak Gris Bordeaux Sa nag ñëw na ci. wax na ni bu giri nangoo dina jàpp ni daf ko tànn daf ko may chance tendre ko la perche mais tamit bu bañee dina comprendre choix bi du ci wax leen. Euh, comme su fekkee ne Gris Bordeaux nangu na li nga xam ne mooy jël avance am noonu leen noonu loolu dina ko jox opportunité maanaam grand côté petit su fekkee aussi nangul tamit mu xam ne rek na yàlla moo dogal lool mais loolu nag xam nga duñ si mën a xuus lu bëri ndax soo seetloo boobu ba léegi euh, waa kër Sa Thiès nooy wax waa Fass kenn déggu leen ndax ku xam Gris Bordeaux xam ni moom mi ngi si sekk VIP yi est-ce dina nangu jox chance ñi nga xam ne mooy rakkam mi loolu lépp nag mi ngi dépendre si waa Fass ndax waa Fass boobu léegi kenn déggu leen nii di Abbas Nooy kii nii di Mbaye Guèye nii aussi Ndeye Mbile ki nga xam ne moom mooy Gris Bordeaux xanaa nu xool si biir semaine bi nu xool nagam Fass dina d'accord jël ki nga xam ni moom mooy Sa Thiès est-ce tey ndek mba loolu andiwul question bi suñu lamb samp tey muy Euh, ndax Gaston dina mettre le prix qu'il faut pour accrocher li nga xam ne mooy yenn mbër yi. <laughs> Euh, Aïcha Faye gënuma laa xam Gaston gason nekkul promoteur yi nga xam ne dañ koy patam patamee wala boog ko def chantage moom prix la yor su bëggee nga bëre su bëggul tamit nga bàyyi mu seeti leen moom marchandise am la yor mais li ma si gën a xaw a jaaxal rek euh, ñoom suñu bëggee bëree mbër yi daañu mën a nangu yenn prix ndax prix 60 millions 50 millions ak ak situation dëkk bi Covid 19 bi toog ñoom toog nañu def saison blanche te VIP nekk rawatina nekk chef de file. Euh, ñu lay jox cinquante millions soixante millions nga naan dangay ngay da ngay xaalu gën a ba a ngay taamu loolu loolu aan gëm naa dina xaw a jafe man daal su ma sañoon daal ñu nangu euh, prix yi ñu leen di fay pour ñu mën a takk seen làmb bëggal amateur yi. waaw ba tey ci prix bi la ñuy toll parce que tey gis nañ kii di may ñi nga ñu gën ko xam si mbay neewaal di entraîneur ki nga xam ne ni mooy Tapha Tine moom nag ñoo na tey ci sunu làmb ne pare parewuñu pour bëre ki nga xam ne ni mooy Reug Reug même bu ñu leen doon fay 100 millions du combat bu leen ko jaral. xam lépp rek euh, comme lu ko Babacar di wax rek ñoom nooy choisir donc choisir boobu nag la lañ koy bàyyi am nañ seen choix mais nag dama yaakaar ni euh, loolu yëpp comme li ñu wax rek grand contre petit euh, ki nga xam ne mooy Tapha Tine moom il juge que dañ ko bëggu sacrifier soo déggee a sacrifier maanaam nekkul kii quoi mais maanaam moom li mu bëggoon maanaam bëre woon ak Sa la bëggoon Euh, defee nañu daaw ay nit ñu ay mbër yu bëre mais ñooñu bëgg nu bëreek moom léegi pourquoi léegi ñoom nee nañ waa tafaati nu ne euh, ñoom rek rek bëgguñu ko Sa Thiès la ñu bëgg ñu leen di forcer Sa Thiès ñoom nee ñu même avec 100 millions yu mu bëree ko rek parce que rek rek ko fi bàyyi pourquoi ñoom léegi ñu bëgg leen ko jox noonu ñoom nag ils ont préféré décliner l'offre de Gaston dem seet leneen léegi nag xanaa nu xool rek su fekkee ne Fass nanguwul Sa Thiès xanaa nu jéem a dox Sa Thiès ak tafaati nag comme que tafaati ak Thiès ak Thiès ak Sa Thiès ñoom ñaar ñëpp bëggante nañu euh, Aïcha Ah, nekkum ba ñu dem fële écurie Bour Falé gis nañ euh, ba Tyson euh, bàyyee ba léegi écurie bi demeetul noonu dañuy toog ay saison sax duñu am euh, combat Valdo lañ fa gënoon xam ak Gambien ñu nekkoon di jéem a doxal écurie bi waaye tey ki nga xam ne ni mooy Gambien te si dina exilé wu dem Gambie toog fay def carrière am. Aïcha Gambien si demee Gambie mooy lan loolu. wàcc na. kon bokk nañ wax ne ko kon dafa delluwaat seetuwaat mbokk yi rek te xëy tamit su demee foofu dina euh, mun a euh, intégrer benn écurie bu nekk Gambie ndax nee ñu Gambie à part du simple du bëri dóor taxu ko siiw foofu noonu donc su demee foofu noonu dafa delluwaat si mbokk rek xoolaat mbokk yi nu wax tamit euh, écurie bul faale xëy tamit ki nga xam ne moo ko doon incarné mooy Tyson bu mu demee bu léegi pratiquement doo doo ko dégg gisatuloo ko mooy comme genre ñoom Alpura rek écurie Alpura bi nga xam ni moom la Baye Boy diriger am na ay écurie yoo xam ne seen chef de file suñ koy retiré rek pratiquement mu ñu wax ne euh, écurie boobu moom parce que parce que deer na euh, donc loolu la loolu la bul faal si tànk yooyu bul faale nekk Gambien dem na déggatuloo parce Valdo wala su amee combat balaa muy amati combat yàllaa xam xanaa nu wax rek ki nga xam ne mooy Tyson mu gëstuwaat tuuti xale yi na xale yi gunge nañ ko jàppale nañ ko lu bëri si carrière léegi nag xanaa rek mu delloowaat euh, mu lu ñu wax rek rendre la pièce la monnaie waaw dañuy dem seeti ki nga xam ne ni mooy euh, Malick euh, Gningue nekk fële di président yi xam sa cosaan euh, nekk ca Pikine Malick Gningue ñëw na ci jaar jaaram biir ki nga écurie xam sa cosaan bi ñu ko defee président ak léegi itam ñëw na ci li nga xam ne ni mooy wàcc bi écurie bi nga xam ne wàcc na ko parce que am na benn année ñu def bilan ñu jël paie. boobu ak léegi nag écrit bi wàcc na bu baax a baax a baax ñëwaat na ci expliqué li nga xam ne moo waral euh, écrit bi wàcc. Euh, Aïcha comme ni nga ko waxee rek xam nga président amul lu dul dem wuti ay moyens jox écrit ba ñu jéem a doxal mais nag munu la nag mun nekk seen ginnaaw chaque journée leen dem leen entraînement mër bi mu mër yi noo war a xam ñoom lu ñu bëgg. Euh, maanaam di respecté entraînement di jéem a dégg conseil yi nga xam ni moom la leen coach yi di jox mais mër boo xam ne bëgg nga combat mais balaa ngay yeewu midi. doo jéem def benn effort pour jéem a doxal écurie bi loolu nag président bi mënu si dara comme lu may wax rek moom munu ñëw entraînement mun topp seen ginnaaw yor yar leen dem leen entraînement ñoom noo bugg ay millions suñu amee ay millions noo ko yóbbu seen kër donc ñoom noo war a xam ni entraînement mbër dafa war a entraîner ñëwaan tamit defe naa si euh, mbirum Alioune Sarr Alioune Sarr moom xam naa ne moom séeréer bu am cumbukaay la parce que <laughs> fan yi yëpp lu ñu koy tudd yëpp Alioune Sarr bàyyi Alioune Sarr bàyyi xëy na bokk su toogee waxtaan ak ñagaraayam xëy dina jël décision bi nga xam ne moom mooy décision boo xam ne mooy décision bu gën mais daal comme dañuy wax rek nañu xaar ba xam parce que nee ñu le 31 le 1er octobre la mandat am li jeex nu xaar moom ak euh, ministère Matar Ba yéen décision lañu jël pour xool nagam na fi indiwaat Alioune Sarr wala boog naan Alioune jaajëf na keneen ñëw ndax nekk ba ñu yónni yàgg rek euh, boo xam <laughs> lu muy joxe ñu dem euh, fële ci record fekk fa Abou Ndour Abou Ndour tey andi ñu ki nga xam ne ni mooy Ama Baldé andi si ay trois combats yoo xam ne ni marqué na tey carrière ki nga xam ne mooy Ama soo ko waxee di nga ne diggante mag euh, Malick Niang la diggante mag euh, Tapha Tine waaye diggante mag Papa Sow nekk ma lu mu ànd ci carrière u Ama Baldé ah, mën nañu wax ne ñetti combat yooyu ñoom noo propulsé ki nga xam ne moom mooy euh, Ama Baldé ndax ki nga xam ne kenn ñamewu ko ku doon dox war a rëg-rëg rek ku dox combat delloo sa avance donc moom mu ñame ko jël ko daan boo xam ne ba léegi mi ngi mi ngi foofu tege ñu ñëw aussi si combat ma ak ki nga xam ne mooy Tapha si si si TNT bi combat boo xam tamit Tapha Tine def naa moom moo brisé envol envolom ba léegi ndax defet bi mu am si si Ama Baldé moom moo tax VIP yi bëree bëggatuñu bëree ak moom te loolu sax moo ko gën a retardé carrière am euh, beneen combat bi mi contre Papa Sow boobu nag moom neexoon na trop loolu aussi te foo déggee ne pikin ak Fass derby la te finalement Pikine moo ko gagné donc loolu yëpp participer na si carrière euh, Ama Baldé bi nga xam ne tey moo ko yóbbu tey si si cercle de VIP ba yóbbu ko tamit si combat royal bi Euh, ñu jeexal ak euh, leewtoo point net fekk fa euh, les promoteurs morne comme ni nga ko waxee promoteurs yi nga xam ne ñëw nañ fi benn saison marqué lamb daal di ku ci mel ni ñoom Maxu Subatel ku ci mel ni OK Africa ak ba tey ba si Pape Thialis. morne na su nga ko déggee maanaam dañoo judd rek dee fekkee liir la ñuy wax jur liir boo xam dafa judd rek dee mais bii nag dañoo jël tuuti pléonasme jël ko nag si côté promoteur yi nga xam ne ñoom dañoo ñëw marqué fii. tëgg fi ay combat yu mag mais bu ñu defee loolu ñëwaatuñu ñu ñëw euh, commencé ko si nga xam ni mooy Pape Thialis Faye ñëw marqué arène bi jël combat royal euh, contre Bombardier ak ki nga xam ni moom mooy Eumeu Sène bu mu nga tëggee ñëpp doon xaar nag mu euh, mu delloo buum sa booy booy ba saison bu stop Pape Pape Thialis Faye ne may kenn gisu ko boobu ba léegi ni nga koy seet ñaari at ah, xanaa am nañu yaakaar nag si Covid bi jeexee xëy dina dellu si waat di si ki nga xam ni Matar bu subateel moom bu mu tëggee combat Bombardier ak Modou Lo dèjà ay jafe-jafe yu métti la ko tëgg ndax ba si jour combat bi sax avance yi reliquats yi waroon a bàyyi si biir seen CNG bi sax euh, promoteur ñoom ñoom euh, manko jëm ko euh, joxe. lijjanti ko pour combat bi mun a am kooku tamit bu mu tëggee bu pare kenn gisu ko ñu ñëw tamit si ki nga xam ne mooy Moustapha Diop bu OK Africa bu mu tëggee aussi combat royal dafa na gars yi combat royal li xaw a metti ndax ku si tëgg combat royal ba pare kenn du la gisaat Euh, euh, Moustapha Diop ren ñëw na tëgg combat royal diggante Eumeu ak Modou Lo moom tamit bu mu tëggee combat royal bi amoon na si ay jafe-jafe ba yenn mbëri sax ki si mel ni comme ñoom euh, Eumeu Sène génnoon nag staff Eumeu Sène génnoon di laaj reliquat kii xaalis bi mu ko desee desaloon finalement dégg naa ne aussi ñu ne finalement fay na fay na mbëri donc muy jafe-jafe yoo xam ne ñetti promoteurs yooyu dund nañ ko te nag aussi ni ngi yaakaar ne daañu ñëwaat pour mun a sukkali waa làmb ji Aïcha aleykum ñu leen di ñaanal rek yàlla yokk xéewal yi dafa suqaliwaat leen ba poche fees ba ñu mun a dellusiwaat contribuer ci li nga xam ne nii mooy lamb ji ñu lañ leen andiloon tey ci seen euh, revue de ak euh, jàngat bi di leen ñaanal jaamu fu ngeen mun ci nekk ci àdduna ñaan yàlla euh, musal ñu si mbas bi te gaaw ko fi jële ba ku nekk mën a nekkaat ci say activité waaye nag ginnaaw dem la woon fête des te liggéeyuñu mais profité te rek sooy de fête sama papa yëpp ak samay mag samay xarit képp koo xam ne rek père nga wala ñi ñaan yàlla nga nekk père ah ñi lay souhaité bon fête di ko souhaité tam sama borom kër samay papa papa yi njagaaka bébé paate mu koy ñaanal jàmm sutura xéewal ju bëri bëri bëri bëri ah, yàlla may ko jàmm yokk ko ba mu yëg ko Euh, mosoo ko di seetaane eh, mosul ci seetaane ak lépp lu bon mais nag damay souhaiter euh, Ndeye Comba joyeux anniversaire euh, Nogaye sama petite sœur topp si man sa si man rëkk nee naa ko léeg-léeg nga rëkk ma waaye borom baax la macha allah borom Italie ma lay ñaanal la gudd fan ak wér ñaan yàlla musal la si cat ak làmmin doon la sutura xéewal yàlla boo gis dara la loo ragal fi nga nekk loo fa bëgg rek yàlla na la ko yàlla yombalal si barke Seydina Muhammad ak barke sëñ Babacar mi nga xam ne nii mooy sa sëriñ amin Babacar kon kooku noo bokk wasila ñu ñëpp uh, dégg ma naan Babacar sama <laughs> xalaat Babacar daf ñu toppee mboor uh, uh, ki Aïcha Faye madame ñaan donc comme li nga wax rek ni koy souhaiter joyeux anniversaire kooku Nogay depuis depuis Italie du naa aussi ngay ñaanal aussi Ahmed Niang kooku moom ñaanal ko rek boolu ceeb bu bëre ndax xam naa ne moom soxla na ko lool lool lool guddi gi nu toll Aïcha Faye nag si kàddu yoon leen tàggoo di leen jox di daje suba mais balaa boobu may nuyu sama yaay Meso nuyu sama doom sa Mohamed Diouf du nuyu ki nga xam ne mooy As As Seck ak Chéri Khoudia Seck depuis Italie As Tandine Chéri Khadija Diallo aussi euh, déjà Brahma maa ngi nuyu di nuyu samay doom Mame Diarra bébé Fallou ya ak ki nga xam ni mooy Mame Diarra ñoom ñëpp depuis Parcelles Assainies maa ngi nuyu Abdou aussi yaa ngi si biir depuis États-Unis maa ngi lay nuyu Ramos Ndiaye aussi duma ko fàtte.